إنني أرجو من الغازي اللقيم بجاه المخفانا سر الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di seede yàlla ci xéewal gu rëy gi nga xam ne moom la ñu defal muy xéewal gi gën ci xéewal yi gën cee kawe muy xéewalu lislaam waaye mu jox nu xéewaluk sécurité muy al amn ci suñ biir réew may nu wér-gi-yaram nuy seede ni moom képp mooy ko xam ni mooy buur boo xam ni kenn du ko bokkale bokkut ak kenn dara lépp rek moo ko wéetoo waxtu wu ne nag bis bu ne am luy xew luy xew ci bis booba gannaaw bi nu julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak mboolem ay saxaabaam yépp ridwanullahi alayhim gannaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen dénk ragal yàlla ak topp yàlla di ko dénk suñu bopp di leen dénk sant yàlla ci xéewal yi nu xéewal nu koy fàttaliku bu baax a baax xéewalu yàlla dinaa leen di wax ni dañ koy tënk ba am lu koy tënk ba du dem loola mooy jaamu yàlla ak bàyyi lim tere am na itam luy tax mu rëcc dem mooy ñàkk jaamu yàlla ak di def li nga xam ne moom la yàlla tere kon loolu lépp mat a bàyyi xel bu baax kon mbokk yi bu xoolee daan sant yàlla bu baax a baax li am ci sécurité ci sunu réew donte lee ay ay a ngi fi am waaye bari na réew yoon bu ñu defee bu bu nisbaa ak ñoom par rapport ak ñoom daan xam ne jàmm mi ngi fi sunu réew bi kon loolu war nañ cee sant yàlla bu baax a baax te ñaan jàmm ji gën a yokk li koy jaxas ñu ñaan mu deñ mbokk yi sunu wërsëg yi ni ko yàlla yaatale néewaa na ñu mu ko yaatale ci ñoom am na réew yoo xam ni bal yaa nga fay tàkk guddi ak bëccëg dégg ngeen lu mel ne Ukraine ak Russie dañoo tudd yooyu rek waaye am nañu ko jiitu yoo xam ne ñu gën nañoo jege lool bokk ci Afrique rek mënuñoo am jàmm benn waxtu yàlla may nu ñu am jàmm sunu gouvernement dal amul rëng-rëng amul ñenn ñoo xam ne ñëw di xeex di jëli ngànnaay amul ci réew mi yàlla defal na jàmm jooju ñu war koo doolee sant bu baax a baax kon nañ sant yàlla ndax xéewal yi sax fi xéewal yooyu sax bañ a dem kon loolu moo tax bàyyi xel bu baax am na réew yoo xam ne nit ña ngay daw di génn kenn bëggatu faa nekk xam ngeen ni jam mooy tax nit ki am wér gu yaram ndax ki dem hôpital fekk hôpital ba ñu fay dóor ay bomb ñuy daw di tasaaroo mel la xew Ukraine ak docteur bu tala faj du fa nekk day dem kon ku wér di xanaa looy def xanaa tok dee rek kon loolu ngay def loolu lépp yàlla suñu borom musal nu ci war kosan sant bu baax ala alal noo ko yor nu neexe kenn nangu am na ñoo xam ne lu yor ñu jël ko te ñu sax alal seen bakkan lañ tal kon loolu lépp mat bàyyi xel bu baax a baax mën na bàyyi xel nañ ko bàyyi xel bu baax kon xéewal yàlla gi nañ koy sant ndax mu sax fi te ñaan yàlla def jàmm ci réew mi dana ko ci def naam ndax ñaan ñaan nañ ko ñu baax ñi fi nekkoon ñaan nañ ko waaye nag lola góorgóorlu suñu góorgóorlu bopp ndax loola mën a gën a gën a sax bu baax a baax euh, liñ ciy jàppee rek mooy ñu xam ni Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu yoon wa mu tànnoon rek mooy aw yoon te bañ ko waxee yoon woo tànn yoonu jàmm rek la wax xam ngeen ni fekk na fi ay kilifa yoo xam ni ci wàllu diine lañ bokk fekk fi kilifa yoo xam ne ñu ngi bokk ci wàllu ceddo gi ñuy xeex ak nasaraan bi guddeeg bëccëg waaye kenn mus cee am ndam ndax bépp jihaad booy def te du yàlla dalaa jox ndigal ni la demal jihaad yi bu doo doo ci am ndam mukk ceddo kon bu déclaré guerre moom képp ku ko def ci jamono ji nekk doo ci am ndam mukk ndax yàlla daf la ko digalut yonent bi daal toogoon ba yàlla digal ko xeex mu door a dem xeex أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لخدير بام كوكاي واخ يين ني يفري دون توغ تي بير مكه دي نانغو سيني علال دي لين راي دم لين فايو نك دم لين فايو كون يالا داكو جوخ ديغال اك يينن ايات يو بار يو خاني يالا داكو تا جوخ ديغال مو دورا ديم خاري واي تيوود ليپ نك الاسلام بوبا يالا ميغا خاني موي تيرل نينا الاسلام خاري رك كوي تاخوال لول لا يالا دوغال بو كو نيخون يارين كو فنين كون لولا خاري لا سانتاني بيالا يالا waaye téewul nag yonent bi daa bëggoon jàmm alayhi salaatu salaam ci biir loolu ba kero bi muy def fatu màkkata xam nga ni xare nañ xare yu bari ba juróom-ñetteelu at mu door a def fatu màkkata kero bi muy dem dafa ni na ngeen fexe ba dugg màkka ba dem biir màkk ba àgg ca kaaba ga ba ziyaare ba toog kenn ku ne dellu sa kër toog te bakkan du rot jàmm rek la yonent bi woote woon waaye la ko rax mooy ku ñu wax Suhaylu ibnu Amrin jiit la ci yéefar yi ci dëgër bopp ga moo bàyyi ba benn contingent romb ko boo xam ne ku ñuy wax Xaalid ibnu Walid moo ko jiite benn groupe ci ci ci soldats yi jullit mu daal di wax ñi mu àndal leen nañ leen sànni ay fett ñu daal leen songu sànni leen ay fett Xaalid ibnu Walid daal di geesu jox gaa yi mu àndaloon ndigal ñoom ñu tiire seen i fett ak seen i xeej diggante bu gàtt rek ñu rey ci ñi àndoon ak Suwaylu ibnu Amri ñu rey ci fukk ñu ñu tasaaroo bañ demee ba mbir yi dal yonente bi ne ah xanaa de jàmm rek xew Xaalid ibnu Walid ni ko am na tuuti lu fi xew de mu ne ko lan la mu ne ko Suhayl ibnu Amrin moo ñu gaarlu xeex na noonu moom ba rey nañ ci ñoo fukk yonent bi ni cey la ma bëggoon day wute nag li waaye nag yàlla moom li mu bëgg rek mooy li gën damaa bëggoon nu def fatu màkkata ba mu jeex te benn bakkan du wat kon loolu la yonent bi bëggoon alayhi salaatu salaam moo tax sëriñ bi bi mu ñëwee eh, li ñuy wax eh, rupture idéologie eh, moom la def ak gaa yi fi fekkoon xam da leen fekk ñuy xare di xeex ñu bari ñi ci ñi ci ngóor gi ñi nekk ci euh, diine ji ñuy xeex ak nasaraan waaye kenn mës ci am ndam sëriñ bi ndikkee nag daf ni xaar leen ma jaar yoon woo xam ni su ma ci jaaree yéen ñëpp da ngeen mucc te lislaam dana taxaw ni ma ko bëgg kon kooku foofu la solution bi nekk kon alaaxa bi nga xamee ni moom la moo nekkoon digganteem ak euh, euh, sulutaatul istihmaariya muy muy colonialiste yi alaaxa bu bu bu bu bu metti woon la waaye sëriñ bi ci boppam dund na ko lépp ba mu jeex ba jàmm am nasaraan yi génn réew mi lislaam taxaw fépp ca ko bëggee woon te ci jàmm ji mu ko jaaree dong la ko am moo tax am na bis taalibe yi dajaloo fi moom ak yenn kilifa yi ni ko dama bëgg daal nga fetal jihaad lu xeex ak nasaraan bi benn yoon rek ngir mu jeex nan xeex ak ñoom ndax am nañu kattan te yor nañu ngànnaay te dëggu nañu sëriñ bi leen toog leen ma wax ak toog sëriñ bi laaj leen ni la ay na alxaaji omarul fuuti yu ana alxaaji omar fuuti yu ñu ne ko ah da waaye dem na bañ daaneel ko fu ñuy wax bañ da garam mu ne ana ma ba joxu anam ñu ne ko rey nañ ko fu ñuy wax sombo xareb sombo mu ay na ahmad seexu ba lamtooro gi nga xam ni moom lañ doon dàkkantele lamtooro mu ne rey nañ ko ci xareb samba sadio mu ne ay na mouhamadou lamine dramé moom it da doon xeex di jihaad ñu ne ko rey nañ ko ci barab bu ñuy wax laman koto mu ni ay na lat joor jóob ñu ne ko rey nañ ko ci barab bu ñuy wax deqale mu ni ayna sambalaw bi pend ñu ni ko rey nañ ko gaarub Tiwaawan ah, mu ni ana Alburi Njaay ñu ni ko dàq nañ ko ba bu ñuy wax sóor bu ñuy wax dooso foofu lañ ko mujj gis tubaab bi rey na ko kon la muy tekki ndax koy xareek nit mu dàq la ba kenn gisatu la ñu wër wër kenn xamul foo li ñuy wax lépp doxe na fa tàbbi géej mooy rey nañ la rek kon rey nañ ko sëriñ bi ne nag ñooñu ñëpp gis ngeen leen yoon wañ jaaroon lu ma ci jaar ndax yàlla santuma ko te it am na yoon wu ma teg woo xam ne bu ma ci jaaree man danaa am ndam te loolu leen dal du ma dal moo tax mu nag mu wax ni lil Moustapha nawaytu maa iya sunnatul xara wa inni ahmadu kon lima ma fi andi moom mooy loolu rek daal di jaar ci yoonu jàmm woowee ba am mboolem li nga xam ne bëggoon na ko lépp tey tey dëkkam bu ñu toll fi bi mu ak fii mu toll rek dëkk jàkka yi baree fi nii jumaa yi baree fi nii boo ko doon seet am kon daanaka ñi nga xam ne bi ñëwee fekk fi buur yi doon xeex ñoom dañoo dagg seen seen relation jël beneen yoon woo xam ne lañ jaar si Ahmad Bamba radiyallahu anhu ci la bokk alxaaji malik si ci la bokk Baye kilabok ci la bokk eh, Cheikh ci la ak ñeneen ñu bare bari ñooñu ñëpp tey boo demee seen i dëkk na dëkk na seen dëkk ya dundee ak nam feese ak i nit ak la fa nekk ci mbooloo ak la fa nekk ci ay njariñ boo demee ci dëkk ñi nga xam ne ñoo doon xeex ak nasaraan dëkk bu ci mat dara amut kenn dëkk fa kon loolu mooy yoonu jàmm kon ñi nga xam ni li ñu ciy junj booy ci politique bi xam nga jamono yi réew mi jax na lool coow li bari ñu toll ci li ñuy wax ay intixabaat muy ay élection nga xam ni tàmbali nañ lu ne ñu ngi ko ciy defante nañ bàyyi xel yàlla bàyyi xel nit ñi tànn yoon wi Serigne Touba jaar te na leen wóor ni doomu adama li feeg réyagul bakkan rek am na yoon mu mën a jaar ba yàlla jéggal ko ak bakkaar bu mu def lu mu rëy rëy rëy li feeg réyagul bakkan am na yoon wu mu jaar ba yàlla jéggal ko waaye bis bu rotalee bakkan rek pexe amatul ci moom sawara rek lay dem wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jasaawuhu jahannam rey bakkan nag ngir nguuru kenn jëru ko ki ngay xeexal nguur yow bu faloo dara doo ko ci am du la fal du la jox alal du la jox dara loolu ndaw ñi lañ ci yee kuñ ci bëgg a woo ci ñëwal def violence lànkal lànkal loo ca def bu sa bakkan rotee ñàkk bu ca sa bakkan rutul kooka bu faloo duutul xam am na ñu la gën a jege fopp ci moom ay ponkal yu mag a mag sës si moom jege ko lool te ba ñuy politique te ñu ngi fii jàmbat di jooy di wax ni ba na àndeek moom di politique bam mu falu day dafa changé numéro téléphone am mënatuñ koo jot bu ñu demee palais kenn du leen recevoir te xeexal nañ ko dégg bëccëg ak fu ne rawatina nag yow mi nga xam ne yow da ngaa yor sa métier rek war a xëy wala nga jël sa marto dem defi ministre wala nga dem defi maçon nga bàyyi fa dem ni damay xeexal kenn ci politiciens yi yaa ngi nax sa bopp yaa ngi yàq sa dund yaa ngi saboot sa bopp kon ndaw ñi nañ góorgóorlu baax ci wàllu googu rabbana xfir lana wa li ixwanina allasina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina xilan lisina amanu rabbana innaka rahman rahim yaxfiru llahu li wa lakum wa li jamiil muslimin wa aximu sufoor yarhamkumullah la télévision dans les prochains jours. Des émissions, des interviews, des débats, des reportages, des éditions de journal pour vous informer. Touba Media TV, une télévision basée à Touba.